ci ndigalul serigne Muntaxa mbake Khalif general des Mourides serigne Sidi mbake Sering Tuba Touba Cheikh Abdoulahat Sering serigne Abdourahim Diop khalif Cheikh Massamba Diop Sam Sering Basiru Diop khalifa Cheikh Mamadou Diop Massamba eladji mam tierno mbake khalifa serigne Cheikh Awa Balla Mbàkke Mame Thierno ibnu eladji mam tierno mbake Touba Pekes serigne mustapha mbake khalifa serigne mam Mor mbake ibnu Cheikh Mamadou Fadal serigne tierno ndjay bokki Touba Dior serigne Koso Mbay bokki Touba Njandaate sëriñ Mamballa Kan bokki Touba sing serigne Moudou Dramé bokki Touba Njuki serigne Amdi Tuba bokki Touba Pekes serigne Soy bu Diop ca Pekes serigne Khalif Diop Khalifa Serigne Mbakke Diop Serigne Dam Sey mbokki Touba Cey Cey sering Moustapha Mbakke Khalifa Serigne Mansour Mbakke Serigne Abdoulahan Mbakke Touba Lewe di leen yëgal ubbital juma yi Touba Pekes ajuma fanweeri fan ci weeru décembre 2022 ci Touba Pekes diko ko yëgal Khadim Rasoul Cheikh seex yoon bi kilifay diina yi kilifay adda yi Touba Pekes di suuf su fa la Serigne Touba Cheikh Abdoulahan rahmatullahi alayhi nek rëbb di këruk sëriñ Touba ci lu genn dekk bu tedd bi di Touba Juma ju reey lañu naaloon andu don ko defar fa keur Serigne Bamba Pekes yooya gaay ya Keruk sering Serigne Bamba lañ def gan bu ñew di fa dal defar juma naal fa daaray alxuraan di xamal juma ja nag la ñu fas yéene daloo ubbi ko dullee ko ngir ndigalul buur yàlla ak jëfe ko dayre fa waaxidu daaray ni jëfam dafa rëy luñ songu jëm ci liggéeyal bamba boole ca way lëkkale nañ doomi pekkees boole mag ba ci ndaw te góor ña ak seen jigéen ñaa ànd ngir bëggu yiw la qualité la différence